comme légui dañu dem ci budget programme mu nek lu bess ñu né nañu tassé ak technicien wu ministère des finances et du budget xol nak répartition bobu ñu def sédélé bobu ñu def budget bi nax ñépp kenn ku ci nek gis nga ci sa bop ñun nak ñuy sant yalla bu baax parce que gis nañ ne ci wàllu genre moom Sénégal def na ay jéego yu am solo indi nañu stratégie nationale d'autonomisation des femmes maanaam jigéen yi ñu jàppale leen ba ñu mën a suqaliku ndax ñëpp xam nañ ne bu jigéen suqalikoo kër suqaliku ñu indi tamit stratégie nationale d'équité d'égalité et d'équité d'équité du genre maanaam yemale bi nga xam ne war nañ ko yemale góor ak jigéen ci wàllu bërëbu liggéeyukaay yeeg bu faj yeeg yooyu loolu itam nekk na lu am solo beneen bi nga xam président de la république li mu Sénégal ñëpp ko ko bi ñuy ne comme askan ko budget gis nañ ne kenn ku ci nekk lay sa préoccupation jël nañ ko en charge li soxal atelier bi comme autorisation ñun dañoo war a topp tamit budget boobu ni ñu koy exécuter ci kaw terrain bi bu ñu xamee ni ñu ko tëralee ci terrain bi ba pare tam ñu évaluer ko xool li nga xam ne diggoon nañu ko ñun lu jëm ci wàllu santé jëm ci wàllu éducation jëm ci wàllu mbay mi lépp loo xam ne joxoon nañ ci autorisation exécutif bi ñu xool ndax ñoom jëfee nañ ko ni nga xam ne moom lañ leen ko autoriser. gis nañ avancé yu am solo yi ñu ci def depuis 2017 bi commencé avec quatre ministères dem ba ci onze ministère ministères dem ba ci tey 21 ministères et euh, espéré nañ ko déwén dinañ laal ministère sectoriel yépp donc euh, te gis nañ tamit avancé yi nga xamné ministère sectoriel ñu ngi koy liggéey ci seen biir département pour que question inégalité yi ñu jël ko réellement en compte euh, donc te ci ñun suñu gis-gis euh, euh, Sénégal bind na plan Sénégal émergent mais ce plan Sénégal émergent boo buggee atteindre objectif il faut que femmes yi bokk les femmes c'est est genn wàllu population bi la ou même plus euh, te du ñu liggéeyagum liggéeyaguñ ci biir secteur formel réellement ñu ngi ci biir secteur informel hein, te loolu mënut a suqali réellement dëkk bi il faut que jigéen ñi bokk ci pour dëkk bi mën a suqalu. jigéen ñi moom gis nañu seen bopp ci budget 2020 bi. parce que nag euh, tuuti wuñu ndax def nañu juróom-ñaar fukki jigéen donc bu ñu gisuloon suñu bopp sujet bi kon duñu ko voté ndax tamit danañ am suñu fula na ñun kat gisuñu si suñu bopp waaye car macha allah gis nañu suñu bopp ndax gis nañ ne ci wàllu éducation jigéen ñi am nañ ci cër bu am solo scolarisation ndaw yi dooleel nañu ko euh, li jëm aussi ci. Euh, Euh, euh, abris provisoire yi def nañ ci ay jéego yu am solo lu jëm ci wàllu santé aussi jigéen yi dooleel nañ leen ci politique de gratuité yi gën nañ ko dooleel mu jëm ci gratuit césarienne jëm ci gratuit dialyse mu jëm ci les soins des enfants de zéro à cinq loolu yëpp gën nañ ko may doole lu jëm aussi ci wàllu agriculture boobu yi tamit jigéen ñi dooleel nañ leen ci ci wàllu matériel yi ak ci wàllu semence yi même wàllu suuf si sax Euh, ministère bi mu ngi ciy liggéey pour jigéen ñi gën cee mën a am accès donc loolu lépp dafa nekk nag ay avancées yoo xam ne ñu ngi koy saluer bu baax a baax waaye nag dañuy wax tamit nañ gën a dolli nañu gën a dolli nag xam nañ ne rek société moom jigéen daf ci am rôle bu am solo te bu ñu doolee jigéen ñi dinañu dolli askan wi.